ndigal lu mu joxe it ndigal loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy wéyee noonu nag defaat nañ ko ko ba yàlla dogal na jokkowaat nan ak kër Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha ginnaaw boo xam ne région yi lu mel ne Fatick ak Kédougou ak Tamba ak Koussanar Serigne Modou Mbacké si jokkoo na ak ñoom waaye Darou Mouhty Serigne Bassirou jokkoo na ak waa Tivaouane Dakar commission ba jokkoo nañ ak Imam Ndiaye waaye jokkoo nañ ak yeneen région yoo xam ne Serigne Abdou Diop imam jokkoon na ak ñoom ba ñu noppee nag lañ ca leeral na ko sëriñ bi kaddu yee jógee ci Serigne bi muy kaddu ndigal moom lañ leen fas yéene jottali. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ni ko Serigne Fallou Garas si la waxee rek noonu la muy weer wu ne bu amee ñaata fan ak juróom-ñeent sëñ bi dañoo yabal ci jumaa ji ñu yéene fi ne nañ séntu weer te lu ci waaye xam nga ñu ko. bu ko defee commission bi nag buñ buñ def buñ ko yéenee ba noppi dana toog ci soowu jumaa ji di séentu weer wi ak di taatan xibaar yi ci gox yi bi biñ ko defee nag ba waxtu wi jot lañ jokkoo lañ jokkoo kër Sëñ Muntaxa fekk na nag gi déggun benn xibaar bu ne feeñ na fen kon bu jokkoo kër Sëñ Muntaxa nag wax ko ko nag mu daal di ko wax ne kon nañ xam ne suba mooy mottali weeru weeru koor gi di fan weer yooyu fan fan wi di ajjuma kon nga xam ne gaaw ci boppam ku weer ku weeru mooy mottali weeru koor gi su gaaw gaaw ci boppam mooy benn fanu kori gi ñu xam ko waaw suba mooy mottali weeru koor gi moom fan weereelu fan weeru koor gi ginnaaw suba nag di di di gaaw kon ñu xam ne mooy benn fanu kore gi na ko ñëpp xam kon ñu ngi ñaan ñëpp xéwal ak jàmm ak sutura ak teraanga noo ngi sant nag bu baax a baax ci ñi ciy jàpp ñëpp rawatina waa ma Moukhaddamatoul Khidma ak coono yi ñu daj yëpp ñoom it ci koor gi kon ak ak Serigne Fallou Gës si la ñoom ak ak mboolem rajo yi fi teew yëpp mënu ma leen réew waa réew mbaay mboolem rajo yi ñi ngi ñi ngi ñi fi teew kon noo ngi leen sant bu baax a baax a baax te tey ñaan yàlla may nu xéewal ak jàmm ak sutura ak teraanga ba ndelu siwaat ko ci jàmm rek wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon ñu xam ne rek weer wi feeñul euh, ajjuma dañ koy mottali benn fanu korite muy bisu korite gaawu lay doon loolu mooy ndigal li bàyyi ko ci sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha xam ne Touba séentu nañu weer wi ànd ko ak mbooleem région yi nekk ci Sénégal waaye ànd ko ak wati waa woon sëriñ Bassirou Abdou Khoudoss ne suñu digganteeg ñoom ànd ko ak commission bi nekk Dakar imam Ndiaye ñoom ne fa nañ ko waaye amul benn région ci senegal bu ñu wan ne gis nañ fi weer yi kon li ñu jàpp mooy suba mooy fan weereelu fanu weeru koor ajjuma gaawu incha allahu rabbi mooy doon korite wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.